question bi ça me fait rire lu tax ma reetaan parce que sénégalais yi seen bopp bu ñuy fal président du ñu xool ku leen wax programme dañuy fal ku leen neex mhm. xëy na moo fi joxe tissu moo fi def lii moo fi def laa le <laughs> résultat bu ñu ko falee moom it mu xool ñi nga xam ne le vote est sentimental non mais c'est <laughs> attention ça fait rire mais c'est la triste réalité mhm. dama gi ni day xool ñi nga xam ne ñoo ko jotale ci nit ñi mu fal Mm-hmm. seen compétence compétence amatu fa njëriñ opérateur politique yi les opérateurs économiques attention ah. da ngay investir en politique bu gaañ bi faloo delloo la ko moo tax si c'est loolu bu ñu ko jox wàlla mu jóg kaas na diw jot na diw jot na man jotuma gëm jotuma ana na na ingrat yi génn mm-hmm. entraay loolu mooy la triste réalité mm-hmm. bu ñu demee ba directeur xoolal problème yi ñu am ci service yu bëri yi yëpp yu directeur directeur directeur nationaux yi société nationale yi directeur yëpp nekk ay politiciens problème bu graaw la suñu directeurs yi surtout ay yenn ay administration bi nga xam ne l'élite de l'administration ay impôts et domaines ah yooyu yëpp léegi gars yi ay ngandi politiciens la ñuy nekk loolu parce que la parce que ñoom ñooy génnee seen xaalis donc bu ñu la falee moo tax ay rapport rapports OFNAC yi xëy nañ ci ñëw gars yi dañ leen di nga am ay objectif politique donc foog nga jël ci kees ki kii Cheikh Oumar le problème du code boobu danañ ci waxaat xëy beneen jour. bu fay Macky di ñëw gars waxoon nañ presque waxoon nañ ko fi. Mm-hmm. il faut que ñu xool fu ñu génnee xaalis pour jox étudiants ñu sol ay t-shirt. Mm-hmm. te fan la xaalisu askan bi fan leen. donc y a un travail derrière bi a def si loolu. loolu c' était pour répondre mais question bi xew nii tey ndar dama ko bëgg a duggee ñett bunt bunt bu njëkk bi mooy lu professeur wax sànq ba ne suñu lu ñu Cheikh Anta doon wax bësam na la foog ñu koy jox gis nga. malheureusement xam ngeen ni wax administration tubaab bi ñu jël recopier ko non tubaab bi boo demee ci seen dëkk yi seen administration bi sañuñu def loolu seen askan. xam nga ñu ñun ñi yàlla dimbali ñuy tukki xam nañ ci dara. boo demee fële seen administration ils sont au garde à vous devant les citoyens. dina yam ay bavure nag mu nu ñàkk. mais ñemewuñu ko dañu jox fonk as lu tax ñu toll fi ñu toll parce que seen administration ils sont au service des citoyens. effectivement. dañu fi tegoon administration nag boo xam ne c'était pour exploiter pour dominer pour noot administration bu ñu wooyee administration coloniale nga xam ne dafa am ay école spécialisée yu ñu leen doon jàngale pour que nga xam ne dangay ñëw ci nit ki dox ci xelam moom ko noot ko tiital ko di ko xoxatal alkaati bu njëkk ba la noonu foo ko gisee daw ñi nga xam ne commis yi nga xam ne ñoom la nekkoon ci administration bi nekkoon ay nit ñu ñuul ñu tubaab bi doon utiliser pour que ñuy traité seen borom ma ne maa leen gën parce que maa gën a jege tubaab bi xam nga chef bu ko defee boo ñëwee ci bureau ku a bind wala mën a lire pouvoir bu mag la woon interpréter ay ngan di pouvoir lañu amoon dama lire euh, euh, monnaie outrage et défi bu du Kruman waaw dañu yoroon ay ay pouvoir même si Wangre tu le verras aussi bu bon bref la mm-hmm. sax de Wangre bon bref en tout cas ñi nga xam ne dañu amoon tuuti sax am tuuti ci administration gi da ngay gis ne dañ doon taxawee ne ñun ñoo gën nit ñi parce que ñoom ñoo dégg tubaab cheikh loolu la ñu waxoon ñu dindi ñaareel bi mooy que nag bu ñu suñu indépendance administration bu ñuy teg dañ waroon xalaataat pensé ko mhm. en fonction de nos objectifs de développement en fonction projet politique en fonction de quelle histoire quel récit national et cetera mais defuñ ci loolu dara dañu continuer même administration bi ñoom ñoom ay réflexe administration colonialiste mhm. boo demee tey Kaolack le préfet de Kaolack refuse depuis 15 ou 20 jours que Kaolack kenn du fi manifester depuis 3 mois ou plus. Kaolack kenn du fi manifester parce que son mooy décider na oui tension bi dañ ko war a gérer kenn du fi manifester. ku déposé ba ci temps yi xale bi ñu rayoon foofu américain bi fële ci mbir na booy mbir nay xale mbir nay génn bëggoon def benn bu wala exprimer seen désaccord. ak seen sensibiliser xam nañ si population ci affaire kii. saa bu ñu déposé moo leen duñ sax bàyyi ñu dem police de moo leen woo bureau du ngeen fi manifester ah da ngeen may jaay truc di wax ak ñoom comme moo leen jur te loolu moo waral jëye ju am ni tey fële cële fële ci ci ndax parce que da ngay gis ne du ñu au ñu ñëw wàccee seen bopp wax ak nit ñi jàppee ne ne ñoom ñoom ci nit ñi la ñu bokk nekkuñ foofu lu du dañ leen takkal garal sénégalais nag loolu toujours héritage colonial bi nga xam ne réglé wuñu ko sénégalais boo ko tegee sax ci bunt bi jox ko vigile jox ko tenue mu foog ne moo la gën ku ci am mandarga bu ndaw bu la ko jaayee war la ko tey bi may romb ci tunnel ñu dem ba booru euh, gaawaan ci àll bi maa ngi gis benn ASP mu ngi toog ci wutu gendarme ñu romb ko xam naa bu gisee suñu baxana bi rek yaanaamaat foog ne moom war nañu wan ne moom policier mm-hmm. te ASP la mi gendarme yi sax ils sont gentils mais moom mi ngi ne fu ñu kanam sax reetaan parce que lan administration coloniale bi nga xam ne ak réflexion yooyu nga xam ne de note de domination de dóor au lieu que ñu comprendre les préoccupations des populations discuter dialoguer ak ñoom dañ leen di wan ne non non ñun lii lañ mën a yem fii lañ mën a yem li ci des amuñu benn sax mën yërmande ci askan bi te nag ci bopp bala commencé mhm. parce que boo demee président de la république mun a taxaw ñëw ci yu mel ni xëy na di ngeen ci ñëw coronavirus ay sénégalais nekk fële pour des questions de mhm. lii laa ci mën fii laa mën a yem saa yi jéemal comme ni ko Doudou mm. waxee mm. jéemuñ dara ci askan bi mm. amuñu yërmande ci askan bi au contraire li askan bi am bu buñ ci mënut a jot pour que askan bi buggee laaj dañu xool ni ñu ko dóoree ba mu sax c'est pas pour rien que Guy Marius Sagna nekk ci kaso bi ba léegi parce que dañu nekk ci ay réflexe dóor te Macky Sall moo taxaw ne deux 2025 ba tàngee parce que xëy na moo xam nu mu gouverner woon ba xam ne 2020 bi dina métti parce que yu bëri ñu doon nëpp nëppal dina génn donc seen stratégie mooy que nañu tiital nit ñi dañu xoqatal di tëj ci kaso yi di dóor di et cetera di et cetera mm-hmm. loolu mooy nekk deuxième bunt bi beneen bunt bi bëggoon ñëw mu nekk ci pêche bi en tant que tel problème dëgg-dëgg mm-hmm. Cheikh Oumar ni ñu koy wax problème bi problème gestion suñu pêche bi gis nga moo taxoon awma benn yaakaar ci gaz ak pétrole bii ñëw bu ma ci bëggee wax loo dama ne wax leen ma nu ñu gérer ressources yu ñu am dinaa leen wax yii ñëw nan lañ koy gérer jën yi dañu dañoo gis coof yi Mm-hmm. dañoo gis jën yu baax yi ay ñoom kii yëpp ñoom doraan nag la am ak yaboy. yaboy bi sax mi ay rouge ay ay badesh doo ko gis. yaboy bee ngi dem de. waaw bi sax léegi. léegi yaboy laboy laboy léegi nee na dootoo ko lekkati de. ressources yi ñu am mu nekk suñu or beeg yooyu sax compliqué na mais jën bi ñun ñu xam ne am nañ jën. mën mm-hmm. nañ ci jot jën bu baax. léegi ñu ne gaz ak pétrole ngi ñëw nga bëgg ci am yaakaar <laughs> bu ñu changé wul système bi on va sa va être les mêmes problèmes. tey ci pêche bi ñu ngi signé ay contrat yoo xam ne yaa ngi wax sànq Union européenne foofu sax am na toujours transparence ndax nit ñi dañ ko xam mais ñu ngi signé ay chalutiers yoo xam ne ay russe lañ. Hmm. ay espagnol pour dañ koy làqatoo xam nga lu ñuy def. Gambie la ñuy def jël fa jël fa benn carte d'identité benn ubbi société na ay Gambien lañ. ñëw ubbi ñëw Sénégal signé lépp te li mu ci métti ñi koy def ay sénégalais lañ ñoom ñoo koy ñoo leen ñoo leen ciy dugal. xam nga bu ko defee ñu pied géej gi ba nga xam ne tey jii foog ñu dem fu sori. beneen problème de fond bi foofu noonu à à mm-hmm. mooy bël bi. Mm-hmm. mais bël bi mais les gars sama gars ñeenti téeméeri nit ñoo ci deew gum. entre 2004 ak léegi. 2004 ak léegi ñeenti téeméeri nit jën ci juróomi téeméer. ñoo ci ko boo waxee sax ci 400 500 xëy na Sénégalais yi dañu foog ne franc la. Hmm. benn ñaar ba téeméer. Hmm. ci ay doomu aadama ci ay doomu Sénégal te li ci ëpp ay doomu gendar googu lañ. koo laaj gendar am na mbokk wala rakk wala xarit wala jarbaat wala ku jëkkëram dee ci bël bi. Hmm. kenn du ci wax parce que marché bi du marché ay accord de pêche kese marché wu dañu ñu ngi jeex ci bël bi la. kenn déggu leen. ñu leen lu bu ñëwee taf yëngal te bu ñu ko drainer defar ko ni ñu war a defee nañu wër fa mu pàcc pêcheurs yi mu ngi fa jaar. Mhm. dañuy ñëw di promettre am na loo xam ne te pourtant am na ay association citoyenne yi nekk côté Gandiol yoo xam ne xam nga loolu leen laaj état ñun jox ñu rek benn gaal wala ñuy jox essence ñun teg mën nañ teg gaal boo xam ne dañuy nekk foofu H24 pour di alerter pour bu amee problème ñu alerter ci saa si mun a am ay secours d'urgence benn ñaareel bi. nañu fexe bay baliser parce que problème bi gars yi bu ñuy romb brèche bi ak ay déplacement salle bi ci suuf ak selon les marées di nga jaar fii léegi mu baax nga jaaraat fi léegi mu yàqu boo daanoo sa mbaal bi moo lay mbaal ci biir mm. nga des fa c'est pas parce que c'est très complexe mm-hmm. mun nañ ko rek régler bu dee état nangoon na ko ubbi canal mm-hmm. ñu am ay ñu baliser ko gars yi xam fu ñu jaar comme boo demee côté ñoo joor noonu ci ndox mi mm-hmm. mais amul benn volonté cette marche là c'est la marche de citoyens yoo xam ne ñeenti téeméer ci ñoom dañu dee. Mhm. te état waxu ci dara. ñu bëgg a gisante ak préfet waxuñu leen. Mhm. donc yërmande. xale yi ñu jàpp onze ci ñoom ay mineurs la ñu dis 18 ans. Mhm. ñu jël leen dugal leen ci prison. ñooñu mun nañu am effet de contamination mën nañu fa génn nekk ay wëyu. gars yi nañ delloo seen xel. lii sax au pire des cas ay manifestations dañ koy traité en flagrant délit ñu yóbbu leen instruction ubbi information nan ay bëgg a bu ko yóbbu fan. bu ko <laughs> euh, euh, koy wax. ci euh, boo xamante ni aussi ñu ngi ko siy seetlu parce que dafa am ay usine de transformation yu nekk ci dëkk bi léegi jën bi jëlatuñu ko di ko yóbbu mais dañu ko transformé def ko farine. farine de poisson huile de poisson. Hmm. léegi loolu par exemple bu nga am 4000 tonnes il faut nga am 99000 de matière première. 99000 tonnes de jën il nga am 4000 tonnes donc tey jii jën bi ñuy wax nii. wax non seulement gisatuñ ko ci Sénégal mooy mauvaise politique de gestion bi nga xamante ni mooy suñu ressources yi loolu aussi problème rek lay indi ñi nga wax waxu ñuy dee ci brèche bi ak ñu euh, waa Mauritanie di rey mais prison Mauritanie fees na dell ak ay doomu Gendar ay doomu Sénégal dans une indifférence totale. alors nga ne temps yii. loolu laa bëggoon wax. que yi di